salaamaaleykum ami internaute ñu ñëwaat ak yéen rek si info yi nga xamante ne nii rek moom la ñu gën a nemmeeku si biir euh, semaine bi euh, bokk na si fi ñu koy euh, tàmbalee rek si lànk ko politique gi di di coowal député assemblée nationale yi nga xamante ne nii boobu ba tey rek ñu nekkoon di xaarandi li nga xamante ne nii moom mooy résultat provisoire yi waaye rek li mu daal di génn rek mooy daal ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar rek ñoom ñoo jiitu rek si kaw kile di Askan Wi ak. ak wàllu ak seen ay naataango waaye boobu ba tey rek nga xamante ne nii daal euh, résultat provisoire yi daal nay euh, daanu rek foo tourné rek si côté opposition bi ak parti au pouvoir ku nekk rek euh, mi ngi xëcc rek ak di jël ay kàddu yu tuuma rek di ko teg si nawleem waaye rek liñ si gën a ràññee rek bokk na si ñii nga xamante ne nii ñoom ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi daal seen ay déclaration ak point de presse yoo xamante ne nii ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñu si bëri si ñoom daal li ñu jàpp rek mooy nii élection yi daal dafa nekk élection yoo xamante ne nii euh, njuuj euh, njaaj la ba tax na daal Ousmane Sonko rek si ay kàddoom yi mu yëkkati daal di koy teg rek si ñi nga xamante ne nii euh, ñooy waa Fuuta daal maanaam lafa fa xew daal moom rafetlu ko benn yoon tey dafa jàpp na nekk na li nga xamante ne nii daal du ay élection législative waaye ba tey rek waa benn Bokk Yaakaar ñoom noppi ñu benn yoon ku si mel ni Farba rek moom daal di nay génn rek def sorti ngir tontu ki nga xamante ne nii moom moo di Ousmane Sonko di ñaawlu rek euh, kaddu yi nga xamante ne nii daal dina ko yëkkati ba tax sax si ay kaddu yi ba ngoom moom mi ngi xamle daal ne ki nga xamante ne nii moom mooy ministre de l'intérieur l'intérieur di Antoine Diome daal mi ngi koy ñaan daal mu daal di organiser rek li nga xamante ne nii moom mooy ay élection foofu noonu sa Fuuta rek ngir rek mën a prouver li nga xamante ne nii daal loolu la waa Fuuta rek euh, jàppale ki nga xamante ne nii moom moo président euh, Macky euh, Sall waaye ba tey rek si coowal député loolu gannaaw ba nga xamante ne nii daal Benno rawe lii di ak Wallu ko bari ba tax nañu ñu bëree bëri daal di wax naan waa Benno amuñu li la di majorité absolue waaye kàddu yi nga xamante ne nii daal moom la nit ñi di ŋaawtu ngaawte mooy ki la di Thierno Alassane Sall ak Pape Djibril Fall ak kile di euh, Pape Diop ñu bëree bëri ñi ngi doon sàkk ñu reste fi ñu toog bañ a jaayi seen ngor bañ a fekk ji euh, ñi nga xamante ne nii moom mooy euh, Benno Bokk Yaakaar ndax kenn su ñoom rek ku daal di dem fàq wutali fële si bennoo da leen di may li leen di majorité absolue waaye nag li si gën a bees mooy daal tey dañu gis que ni kile di Pape Diop nekkoon maire de dakaar moom daal daal di nay dem rek fekk ji ñii di coalition Benno Bokk Yaakaar li bennoo yaakaar daal mu na daal am li nga xamante ne nii moom di majorité absolue waaye nag réaction yi si biir internet bi ñu bëree bëri ñu ngi koy ŋaañ ak yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg si di kaw Pape Diop daal di xamle que ni moom daal dafa wor li di askan bu Sénégal waaye rek lu nit ñi mën a xam mooy bu ñu fàtte que ni politique Sénégal il ne faut jamais dire jamais au plus grand jamais saa yu nekk rek soppeeku war naa mën a am te it dañ ko faral di gis tàmm nañ ko si suñu homme euh, politique yi waaye beneen xew-xew bu bees boo xamante ne nii euh, tiis la ak euh, naqar muy maanaam taw bi ñu nemmeeku rek ni ki démb si àjjuma ji fi nga xamante ne nii moom mooy fii Sénégal rawatina si diwaanu Ndakaaru Njaay muy taw bu am solo bu metti boo xamante ne nii ànd na ak ay dégâts yu mucc ay bokk na si inondation yi nga xamante ne nii fu ñu ko ràññeetoon ràññee noon ko fa bu baax a baax maanaam ay kër yu taa ba seen ay matériel daal di lap si biir waaye oto ak ay magasin yoo xamante ni daal euh, taw bi daf ko emporté daal di koy euh, yóbbu waaye nag li si gën a métti di naqar ak tiis foofu noonu nga xamante ne nii moom mooy sa corniche ouest bu Dakar gannaaw ba nga xamante ne nii daal euh, suufu tunnel boobu noonu rek daa fa taa ak ndox ba oto yi kenn mënul dem kenn mënul dem dikk benn oto nag daal di fay noyé ba ki nga xamante ni daal moom moo ko doon dawal daal di say mujjee ñàkk bakkanam mu nekk lu tiis loo xamante ne tiitlu en tout cas lu nu mën a jàpp daal mooy taw bi ak i dégâts métti na lool waaye nag ki nga xamante nii moom mooy njiitu réew bu Sénégal son excellence euh, le président Macky Sall nag daal di nay déclenché rek li nga xamante ne nii moom mooy le plan Orsec ngir rek mën a taxawu Sénégal si yooyu jafe-jafey inondation yi nga xamante ne nii tey mi ngi teree ñelaw ñenn ñi ba tax ñu nekk si njàqare ak tiitange. ba tey bu ndesalee si ndakaaru kile di eh, leader bu Pastef di Ousmane Sonko ci ay kàddoom dal yu mu yëkëti gannaaw ba mu génnee rek benn déclaration eh, di métitlu ak naqarlu li nga xamanteni ni dal mo fi xew démb rek ci walum eh, taw bi mom dal mi ngi masawu ñi nga xamanteni ni seen ay kër dañ ci inondé ak ñi nga xamanteni ni seen ay auto daf ci yaqku ak ki nga xamanteni ni dal daf ci ñak bakanam lool nak Ousmane Sonko dal mi ngi koy métitlu way nak mi ngi joxogn baram ki nga xamante moom mooy di njiitu réew bi di uh, Macky sàll comme ni mu ko tàmm def rek yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko uh, teg si kawam maanaam daal moom Ousmane sonk daal si ay kàddoom moom daal li mu jàpp mooy président ak gouvernement boo xamante ni daal lépp lu ñuy wax rek ay kàddu la yoo xamante ne nii antul benn yoon tey dafa nekk ñoo xamante ne nii duñu ay liggéey liggéeykat nii ay waxkatu dëgg yooyu kàddu daal Ousmane sonk daal di yëkkatiwaat rek teg ko si uh, ndodd njiitu réew mi ak ñi mu bokkal uh, di uh, liggéey waaye ba tey rek dañuy desandi si information yi gën a fës rek si biir uh, semaine bi bokk na fi fi nga xamante ne ni moom mooy accident bu metti bi ñu ràññeeku foofu nga xamante ne ni moom mooy fa Diouroup maanaam benn bus boo xamante ni daal mi ngi yeboon ay élèves yu école de football daal di tase nag ak benn camion conteneur waaye nag accident bi daal ñu ràññee si ni lu toll si 65 personnes daal ñoo si am ay blessé yu metti waaye nag ñett ñett si ñoom rek daal di nañuy mm, génn àdduna waaye ki nga xamante ne nii nag moom mooy di euh, le ministre des sports di Matar Ba moom daal dem na daal di leen di nemmeeku rek daal di yëkkati lu toll si ay enveloppe yu cinq cent mille euh, francs ngir rek daal di leen koy joxe ndàmpaay ngir ñu mottali si rek seen ay faju foofu noonu ñu nekk rek sa hôpital ba loolu la leen indiloon si information yi nga xamante ne nii moo nekk les informations phares yu nu gën a ràññee si euh, biir semaine bi ñu leen jox rendez-vous información.